Salut les amis de Sport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations, inbox sénégalais, fait folle maintenant 14 régions du Sénégal, Rokhouroukhari, Gorgoradi, ñu ngi leen di ñi également ci la l'hôpital et ci kër février. tëdd feebar suñu borom fëgg seen bop ngeen rek jam ñi nekk ci kaso yi ngeen aussi erreur judiciaire gi ñu def moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi de àdduna suñu borom xat leen dajane fi do ci gars yi ñu on avance ensemble dans la machine de Baba Show et de Sport TV l'actualité compte continue gars actuel bi tey ñu fas yéene waxtaanee ci Mbaye Amady Niang bi nga xam nag amaan na accident encore fi nga xam donc bii pa euh, ca impoli fi mu nekk ñu fas yéene wax également ci carrière am ak équipe nationale du Sénégal lu Mbaye Niang jamono ji à 29 ans ba léegi mënut a réussir laata boobu mbokki Sénégalais le 2 avril la li nga xam mooy donc ñi fi nekk ci nguur gi di jugee inshallah allahu rabi par force par la force doole mbaam ah ñeneen ñëwaat fii yéen nag yéen mbokki Sénégalais yi dem leen jëli seen carte électeur yi ku nekk nag foo mënte faar nga mën koo daal di voter nee naa da ngeen dugg ci surtout li nga xam ne donc Sénat vous wala boîte de recherche rek dugg ci euh, nga ngeen euh, Sénat C E N A S N S comme Sénégal N comme national tout collé hein, donc SN ngeen daal di di xol ndax ci fichier électoral bi ñu yor yi dem ko ci préfecture bu fa ngeen dem accident. ak otoom ah mbëkk ñaari oto la daal di def ñi nga xam nag mooy impoli ñoom ñoo ko daal di xamale ne nag bii paa li waral mu daal di def accident mooy que ne mbay ñaa dafa faral jamono eh, xam ñoo bokk ab moom nee nag ñaari oto yi loolu daal la wax mais mbay ñaa nag moom ak accident ak également li nga xam moom parce que mbay ñaa carrière booy seet li tax ba tey ñëpp bëri jàpp ne réussirul Karim comme ni nga ko war a réussir koo xam ne jaar nga Milan AC mooy ne dafa am loo xam ne tey gars moko ko sonal mooy hygiène de vie aujourd'hui nak mbay benen mbay ñaan la gis mi ngi ci impoli début de saison bi ba mu fa nekké légui machallah ñexina dañ ko euh, jënd ñaari match dugal na ñaari but mais mbay ñaan histoire am euh, mi ngi commencer déjà premier problème 2013 ba mu nekké ci équipe nationale espoir bobu non moom ñoom Antoine Griezmann ñoo fa nekkoon ay M Villa ak également ki nga xam ne mooy donc Ben Yedder ñu wax leen nañu teud nelaw ñom ñu daal di euh, mur génn ah dem bañ a nelaw lool nak nekkoon problème bi ba ñu leen di exclure daaxoon leen ci équipe nationale espoir bi mbay ñaan tamit benn jamono mbëkk na li nga xam ne mooy donc otoom benn Ferrari bu mu yoroon mbëkk ko ak ak li nga xam ne mooy donc garab loolu nekk si yeneen problème mais aussi dawal na oto ah, jamono ji mu nekkee su ma juumul Montpellier ah te yoru woon permis bañ naroon ko si ah, daal di ah, def garde à vue mu daal di avoué ne finalement moom moo doon dawal oto bi jawaram également jiñ na ko fi ne da ko fi doon dóor ak yu ni mel mbay ñaa aussi nekk jour boo xam ne musuta am li nga xam moy ben euh, constance ci par rapport équipe am bu nekkee Milan joué na fa ak ñoom Pato il était excellent mais amul suite ñëw na équipe nationale du Sénégal également one fi lo xamné ne gars ah, donc surtout bu mi soog a yegg na fa performance yu baax baax 2018 bi notamment am na lu mu fa wane ba njëmee coupe du monde ak ñom Pologne et tout mais 2019 bi Mbaye Niang c'était table rase joué une compétition ba mu jeex al Cissé insisté joué loko numéro 9 mais il a euh, fait une dizaine dugalul ben but depuis boobu Mbaye Niang également équipe nationale du Sénégal convoqué nañ ko fi mu daal fi joxé ben prétexte ne dafa am blessure blessure bo xamné gars yi nee nañ existé wul boobu la Mbaye Niang gëjee équipe nationale du Sénégal donc aujourd'hui le parcours de Mbaye est un parcours assez triste hein, malheureusement malheureusement parce que comme j'ai encore dit c'est un excellent joueur mais ñàkk farlu ñàkk am hygiène de vie moo tax tey jamono ji ñëwum Sénégal du yombati hein, pour une équipe nationale du Sénégal bien vrai que nag actuellement il ne gën na màgg hein, ah une trajectoire comme j'ai dit si d'hôtel gi mooy que ne euh, mi ngi di respecter dinem ah hein, ci par rapport li ñu li wax mais aussi mi ngi wane beneen xar kanam commencé voir nek ci une zone de performance un statut de performance euh, on espère que dina continuer bu fekkee ne si dynamique bi la nek nak parce que nit ku nekk mën nga soppi parce que nit ku nekk mën nga soppeeku ci diganté bi hein donc on espère que ne mbay Diagne euh, biñu ñu doon Mbaye Niang bi doon gis plutôt ci ndorteel gi ñep naan amul hygiène de vie et tout tay bokul ak Mbaye Niang bi nga xam 29 amna 29 ans et que peut être il pourra revenir en équipe nationale du Sénégal mais pour l'instant, c'est loin loin loin d'être li nga xam moy donc envisageable pour mbay Amady Niang à moins que mu continuer ak impoli di jouer respecter xam donc performance mi tegu ci am hygiène de vie parce que club yi fi mu ne nii Italie nga xam ne nag moom. xaw na fa am ba léegi code de popularité ndax jarna na et tout yeneen championnat yi parce que ba mu jugee Turquie ndax problème salaire dem na France mais ben club nang ko woon jënd parce que xone ne c'est un joueur à problème récemment li tax mooy ba mu Bordeaux aussi duñu fatané ah, hein donc Bordeaux dañu dañu dañoo ci li nga xam mooy zone rouge warona ki warona waroon mom ñu jox leen jour bo xamné hein ah, jour jour de repos la ah, du jour de repos plutôt mom mu dem di jouer ay futsal ah fekk jamono jooju club bi mi ngi nekk ci problème bo xamné dañ leen wajé na relégué yóbbu leen euh, deuxième division loolu nag météo supporter loolu bokku na ci tax mu Bordeaux donc carrière Mbaye Niang daal c'est une carrière c'est une carrière atypique bo xamné gay ay problème le bëri ay njombe ay erreur et tout mais on espère qu'aujourd'hui aujourd'hui changé na yenn gay ben ban gis-gis ngeen ci am mais aussi toujours un plaisir de vous servir woy leen di abonné ci Baba Show également comme li nga koy defee ci Sport TV parce que waxna gay na liñu naan soxal wax leen sport et que actualité on vous le promet liñu wax fi ak liñu wax fee bokul fi amna na ñu ñëw analyser tout gën ci jàpp su baaxee ci le bonus ñu la gay jangé